يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم nekkoon jàmbaar ci liggéey bi yàlla dogal yàlla moom ko si fan yi ñu koy wax soxna Ami Gueye nekkoon Pikine amoon mbootaay bu am solo bu mu daan àndal si ay moroomam ay soxna yu baax doon ànd ak ñun si liggéey bi kon kooku ñu ngi koy ñaanal suñ borom jéggal ko te yërëm ko yéeye ko si àjjana yu gën a kawe te def sang bi muy Seydina Muhammad nekk dëkkaandoom sa aljana yu gën a kawe fay ko lim doon taxaw si njirim incha allah kon ñu ngi jox imam kàddu gi incha allah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جلتي ماني نيو نيفيتيو نيب كان كو نيك تي تروم اك تي سانتام بي ويال سرين منصور سامب di nuyu ñi nga xamante ni bii ñëpp ñoom ñoo koy jàppale ci liggéey bu rafet bii nga xamante ni bii euh, ñu ngi koy def ma leen di sant di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu fay leen yool bu baree bari ci lu ñu ma xalaat boole ma ci liggéey bi maa ngi leen ci sant bu baax a baax lolou teranga mënu ko weesu maa ngi nuyu bu baax euh soxna mam jaara ñang di sargal bu baax di am mbégte ci fekk gi mako fekk fi ci liggéey bu rafet bi. ndax yalla dogal na gëñu ñoo gisante ci liggéey bu melni lan seqoon di def fële ci mosquée Nachevé ay ati ati wala tay di nuyu sun soxna yi nga xamni ni ñoo nekk ak ñom ci wet gi ma ngi nuyu sëriñam medun bay alaykum salaam ma ngi sant yalla bu baax ci li ngeen ma may ma del ci barab bi barab bi nga xam ni xàmmee naa ko bu baax a baax fii xam naa fi li ma fiy gëj yépp taxul ma fàtte ko ndax euh, képp koo xamante ni bii yàlla dimbali la yàlla dimbali la nga nekk ci toolu liggéeyu yàlla bi fii moom barab la bu am solo boo xam ni yi yëpp jaar nañ fi taataan fi jàng fi eh, di fàttaliku bu baax rek di leen ñaanal mag ñi fi nekkoon booba ñun ay ndaw lan ñu ñuy encadré di ñu jàppale ci liggéey bi mel ni ki imam Demba Diop rahimahullah ak Senghor ak ki nga xamante ni moo jiite woon bu yàggal falaax di al imam Marega ñu ngi leen ñaanal yàlla subhanahu wa mu yóbbu ci àjjana ya gën a kawe euh, thème bi nga xamante ni bii moom la association bi tànn taxawu jirim euh, ñu fas yéene ci waxtaan thème bu am solo la comme ni ko ki doon introduire waxee euh, lislaam diine la boo xamante ni bii yàlla daf ko wàcc ci kaw suuf si pour mu toppatoo nit pour mu toppatoo nit toppatoo nit googu lislaam bàyyiwul benn anam anam yépp la jox solo lépp loo xamante ni bi aaju nit la rek day amal njariñ nit